may wax ni euh, monsieur Thiaw monsieur le maire déglu nga président de la république te bi nga ginnaaw bi nga ko dégloo dégg nga ko te jëfe nga limu li nga xam ni moom la santaane ndax tey jii bépp sénégalaise ak bépp sénégalais danga war a defaraat sa toogaay ñun ñëpp ñu booloo pour mën a jàmmarloo ak li nga xam ni tey jii mooy ennemi public numéro un muy le Covid 19. li nga xam ni nag moo ko mën a faagaagal mi ngi nekk ci suñu booloo mi ngi nekk ci suñu ànd kenn ba na bañ a yërëm sa poche kenn bañ a yërëm sa temps kenn bañ a yërëm sa bopp pour ñëw bokk ci xeex bi xeex bi nag buñ ko waxee dañ cee bëgg a jiital collectivité territoriale moo tax bi nga xamee ni def nga lii te Talla Sylla la léegi maire de la ville relevé ko. nga avons ci ñi nga xam ne ñoo pour ñëw comité départemental du ñu def véritablement lu dul rafetlu ko di la ci sante di ci gëreum au nom du gouverneur au nom de tous les membres du gouvernement au nom du chef de l'État. Nous dama fi ñëwoon jox euh, médecin chef docteur Faye ben loowu matériel euh, bu 10 millions pour nous faire jangoro ju ji nga xamanteni ni nek nekk ci Sénégal mais nek ci aduna bi yëpp lool nak buñ ko defee dañuy rek topp ndigalu président Macky Sall parce que dafa joxe instruction pour ñu xex jangoro bi ba mu génn réew mi génn ci aduna bi yëpp loolu nag je pense que képp kuy élu képp kuy maire wala président conseil départemental ñun ñoo wara jitu ci kanam nit ñi topp suñu ginnaw ñu def ñu former ben comme un seul homme xex jangoro bi. ba en tout cas fièvre bi du lor kenn fi Sénégal alhamdoulillah am nañ fi ay cas mais kenn génn gu fi aduna lool nak sante yalla la je pense que ki lay invité rek suñu mbokk maire yi.

bi nga xamante ni xeex bi fa la gënoon virus bi fa la gënoon a metti tey réussir nañ ko donc dañuy invité population yi aussi ñu respecter instruction yi nga xamante ni moom la ministère de la santé joxe Inshallah, on va encore chercher euh, yeneen moyens yu ñu gën a ñëw toujours jàppale euh, docteur Faye ñu ngi koy sant nag moom ak le préfet du département vraiment ci liggéey bu am solo bi ñuy def ci département Thiès mais surtout ni ñu nekkee devant donc ñun maire yi nañu topp seen ginnaaw incha allah jàppal leen ba ñu gañe guerre bi nga xamante ni mooy jële fii feebar bon bi di Covid 19.